waaw xanaa nag sénégalais yi fi mu doon jot na nag ngeen wax ngeen xam ne man maay maay ki dàq seet biir Sénégal xanaa jot na nag ngeen nangul ma fi mu doon nii bàyyi leen soxor bi ma dugalee vidéo bi daan ne Franc mooy daan kenn ku ne naan ma ay vaar am na ñii naan ma ay nangam sangam am na daa bëgg ngeen xam ne fi mu doon nii Sénégal Bignona Gambie dëkk Afrique yi koo ci lim kenn ku ma ci dàq seet ci kàttanul yàlla amul. combat bi beneen fi waxee di ko wax laa leen combat bi dafa daw ci man bañ ma ko demande laa leen bi dafa daw ci man déedéet man combat yu mag yi. laay laay laay kii mais man ay pas ay ay franc ay nangam yi tox ñu ma jub làmb ji seetu ko cinq secondes xaw ma dix secondes seetu ma ko ko seetu ma ko ko seetu ma ko ko bee ma jox bee ma jox ay combat ay Balla Gaye ak ay Gris Bordeaux xeet googu noonu ñooñu sax ay saa nga kii la ñu xaw a tëtalu nga koy jàppaat li nangam deen ma jox yooyu premier li ci des nag mooy fi mu doon nii soq dafa jàpp ne dafa yor doole te yoru ko ay Pikine deux cent pour cent yooyu yëpp ay nit moom dañuy ñu nga ko jëm yàqu sax waaye li problème bi mooy lamb ba ay benn une semaine ay benn deux semaines préparé combat bàyyi ba benn deux semaines des si yéen ñëpp kii groupe loo fii kii groupe loo fii ay deux cent pour cent bi ñii di bàkk fii ñii di duus gis nga ñooñ di bàkku ko duus yëpp bu affaire jotee fële la ñuy dem toog kenn mbëppatu ci kenn bëriwu ci yow la ñuy bàyyi nga dugg ci géew waaw te fi mu doon soq dafa ñëw doon faran moo taxoon mu daw di di di gaaw di dóorantu ñaari ku nangam jàpp man bañ ko jàppee laa xam ne day jeex combat bi buñ ko bu ko bañ ko finaliser laa ñu la mënoon jeex na dama leen ko doon seetaatat rek jox na nag ngeen jox ma li ma moom dem leen ngeen xool combat yi ma mas sa boo duggee si Diagne Efficace bi ngeen gis combat yu mag yi ma mas a wax yëpp combat boo mas wax bii bi Sénégal daanu ci amut te incha allah bi xaar leen ma ci Balla Gaye Gris Bordeaux bi incha allah moo jub jox leen ma ko ma wax leen ci li ma leen ci wax ay Sa Thiès ak rëg-rëg mi fi boobu laa ci gën a gis moom boobu moom <sighs> gis nga daa jëwrin jëwrin foog ngeen jox ma li ma moom seet maa ngi ki ko dàq biir Afrique maman ñu toll nii maman bii ñu toll nii maa ngi ki ko dàq biir Afrique ki ko dàq biir Afrique man la ñi ngi leen jox re yéen rendez-vous nag ci maxi yeeg gis ngeen fi maxi Sénégal bi fi nit ñi tiiteeg coupe du monde beeg coupe d'Afrique beeg yooyu yëpp seega dangeen dem ngeen dugg ngeen liir ko ngeen ngeen seetaat ko jàngataan ma car macha allah jox leen million moom waaye bala maa am na ma def biir Sénégal xaaraat li ma ci yéen ko ngir bëri Balla Gaye bi jub si boobu moom bii sax mbaa yow bañ eggaat ci incha allah bi